suuf si. xool ma la ci lenn bëri laa la wax. man foo jaar nga tax suuf si yow foo jaar nga tax suuf si. da nga koy sotteeku ba ñëwaat tëddaat mu lay neex mu lay naqari. fooy bañ a jaar fu ne Diop de jeex jàmm dina ah, la fa jaarale. xalaat la fa jaarale maay puus maay daan fooy bañ ma jaarale fooy bañ fi dinaa la fa jaarale la jeex munoo bëre amoo doole. jëlal lépp mun maa bëre aw ma doole mais man maa daan. maa daan jóg. yoon bàyyi asalaamaaleykum mbokki internet yi di leen di bu baax di leen ziar di leen bëggee ñu si sur Kewel Info dañuy kilifa diine kilifa aada yëpp di nuyu suma sëriñ notre responsable moral daal di mu sàcc di mu sàcc daal di kilifa diine yëpp tey nag ñu ngi fii si Thiaré ñu seet si Ousmane Diop ah, ba tey miin ngeen ko seen écran ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xamante ni gis nañ ne fan yi am nañu fi am combat Ameth Dème Baye Mandione ñëwoon nañ fi nag waxtaan situation bi nga xamante ni moom mooy Thiaré ak mbëri. mais ba tey gis nañ tamit gars yi ba tey caaro yi dafa mel ni instant ba tey daa gën a yëngu ah, ñu fas yéene waxtaan ak moom ci combat yi nga xam te moo fi nekk ak instant bi nan la gisee ba tey écurie caaro yi ak mbër yi fi ñu maa ngi lay ziar. Euh, noonu kasaare ko ñuy delloo ziar bu wér maa ngi lay ziar di màggal bu baax a baax ak sa caméraman di nuyu ahlu làmb gépp di caare gi dëkk daal. ak caaro yi mbëri caaro yi am na ñu ci am combat. ku ci mel ni ma Mandione Ameth dem war a bëre euh, Baye Mandione combat ñu gis ni dafa jël ki nga xamante ne moom mooy Bébé Diène wax ji bari que ni Baye Mandione waru woon jël Bébé Diène parce que tamit Baye Mandione am na keneen ku waroon a bëre waroon naa mën a bëre ak Baye Mandione junior mais tey loolu nan nga koy gisee. waaw mais loolu amul problème xam nga nit ku nekk ak euh, la muy wax ñëpp bokku ñu yem te benn mbër oyoo foofu yi benn mbër neewu fi doole benn bër ñàkk fee mën a bëri. Euh, bu kii nangulee rek kër day nangu te njoon toogu fu pour benn nit mbër yëpp la fi toogal euh, ci njoon kese ngay gis mu wàccee boppam di bëreek ay moroom yi euh, deuxième combat moom kese nga fi gis parce que bëgg bëri moo waral loolu mais du question ko ñàkk faydaam wala dara mais dafa bëgg bëri moom moom bëri moo ko ñor bëri lay def xoolu kii champion la xoolu kii du champion am na ñoo xam ne njoon mi ngi ñu ngi bëri ñoom te njoon leen raw foofu ci la am raw leen comme dem na yàlla def na mu jël bébé jéen nan ko ñaanal yàlla mu daan bébé jéen ci xol bu sedd guy loolu lañ ko war a ñaanal mais ñu si teg leneen waaw. Baye Mandione ñu gis ni bien vrai que ni nee naa nekk na mbër boo xam te ne du année blanche bëri na ay rakam bu rek ay moromam tey Baye Mandione ci côté entraînement nan nga gisee entraînement am ak physique am nan ko gisee. wax fu dëgg yàlla par rapport ak combat yi mu amoon. njoon fi mu toll nii combat bi mi ngi ciy rey boppam bu baax a baax a baax xaw ma ku ci xamul dara waaye man xam naa ci dara ndax xam naa fi muy entraîné ok euh, ndax bu njëkk xëy na daan na cukki-cukki rek pour bëgg a mais combat bi lim ko jaral moo tax tey jii mi ngi génn génn euh, caaro yi dem di entraîné ji mi ngi contact mi ngi yéeg din mi ngi entraîné képp ku ne entraîné loolu da ngaa wax lu neex wala da nga kaa tegul fu dëgg yàlla mi ngi entraîné ndax man xam naa ci dara kon tey jii euh, kii mu jël ni xale la Bébé Diène xarel dafa nekk ci yoon kon tey jii ñun tamit nañ tourné ci ginnaaw Baye Mandione jàppale ko mais pas ñu si teg yeneen wax ji jaru ko leneen rek leneen jaru ko ku am yéene jàppale Ndione na ñëw jàppale Baye Mandione ndax gis naa am ñoo am na ñoo xam ne tey jii dëkkuñu caaru géej te gis naa leen ñu ne dañoo fas yéene jàppale Baye Mandione ci combat bi lan moo waral loolu parce que njoon dafa am yëg-yëg ci doomu aadama moo gën a ñàkki problème ci àddina njoon demul fen entraînement këram seetul kenn. nan ko jàppale rek yàlla baax na. Mhm. tey boo toogee ñu gis ni Baye Mandione musul dugg ci détail gis nañu instant bi problème bu mu am ci géej chaque jour euh, benn wax mooy ñëwaat dañ gis ni caaro yi bu suba ginnaaw suba bu ñu waxee kii ginnaaw suba kee ginnaaw suba kee ñu gis ni Baye Mandione détail gis nañ détail ak moom ci digganteem Khadim Ndiaye problème am mais en tant que frère loolu nan nga koy déggee tey ñu gis ni bruit yi bari na wax ji bari na tey ban message nga leen di jox. non njoon moom kenn mësu kaa dégg wax dëgg yàlla mu wax ci lu jëm ci biir caaro gi ak benn mbër kon tey jii bu waxee rek am na lu ko naqari am na lu ko metti te doomu aadama dafa am loo xam ne boo ko mënta na ba da koy génne te moom noonu la mel Ndiol lépp lu ko waaye def mu naqari ko du la ko nëbb dala koy wax nga dégg soo leen di ànd ngeen ànd soo leen ànd ngeen xam ne ànduñu mais Ndiol kenn mësu kaa dégg si détail parce que ba ma déggee détail am nee naa ko bàyyil wax ji wax ji xam nga mooy lan fi mu toll nii nan dem nga entraîné rey sa bopp soo daanee loolu mooy sa tontu xam nga dama damaa weex donc man su ma ñu Ousmane Diop wax na mais man li may conseillé njoon mooy ni ka daan mooy tontu li yeneen détails yi bu ci dugg ndax kenn mësulaa dégg nga wax moo tax ma bëgg mu noppi rek daal ñu entraîné. pour déggante ngeen téléphone. ba démb rek ñu ngi déggante njoon chaque jour ñu déggante chaque jour ñu gisante sama rakki bopp la sama xarit la njoon du nëbbante man ak moom. kon ko ci jour maa ngi ci bàyyi ma chaque jour maa ngi ci njoon moom xam na ko xëy na nit ñi nag ñoo xamul te li wax tamit dëgg la ndax euh, tey am na ko combat xëy na ñenn ñi dañuy xaar ñu oo leen wala nangam ak nangam mais comme caare dëkk rek dañoo waroon mobiliser wu rek dem fexe ba fa muy contacté ñu jàppale ji ko wala bu heure entraînement jotee ñoom mbëri ñu daw ñëw dem jàppale ji ko parce que tamit mbër la caari géej la dëkk fii la juddoo yoroo fi masa dem ci benn écrit fii la masa toog di défendre couleur caaro yi masul dem benn écrit njoon masul dem benn écrit caari géej la masa toog. kon daan na entraîné écrit caare. daan na fi entraîné kay comme baam yi ba defar entraîné moo giri ba doo bu jëkk ba quatre heures du daan jóg di entraîné moom moo du awa noonu keneen ak noonu mais tey jotaay yooyu yëpp tey jii moo yàqal yi lépp tey jii te jaru ko fi woon parce que ñoo xam ne àddina du neexee naxal ba lu bëri jarul jarul wax kon nan tourné gi daaw dem jàppale ji ko amul kenn ku ko gën nag moo gën a baax ci àddina. te ay qualité yaa ngi ne moo gën a baax xam nga ñu ay bàyyi ma njëriñ yarul mais yow tey ay qualité bi yan moo la a ne parce que man tamit xam naa ko borom xol bu rafet la suma xarit la njoon di ko nuyu au passage <laughs> sama waay la maa gën a sonn ci reporter mais tey ay qualité njoon. qualité njoon ci bëreek ci lépp njoon ke ndax kaa bëri ñaari tànk yëpp day bëri xëy na nag làmbaam li koy yàqal chaque jour mooy bagaar dafa bëgg xeex moom dafa bëgg a mu ma te chaque jour gaa yi dañ koy nax ci loolu. day bëgg a toog ci ay tànkaam ngeen xeex yi ñaar moom loolu lay wër mais njoor amul kenn ku ko daax bëri ndax ñaari tànkaam yëpp day bëri ndax boo déggee may la dafa baax njoor mooy ki ngay jox avance muy séddale xaalisam gi bu jaaree fii xale yi dañ koy dar xale yëpp njoor la ñuy wër am na mag ñoo xam ne njoor la ñuy wër ngir lan ngir la muy génn ci àllam di leen jox moo tax ma ne laa dafa baax dafa dafa moo gën ci àddina mais njoon daal li wér-wér moo di amul kenn ku ko dàq bëri lan jàppale njoon ngir yàlla ak yonent taba moo gën détails yi détails yi amul njëriñ wax amul njëriñ nee naa ko bul waxati dara demal nga entraîner rey sa bopp ñàllu ñu nekk si ginnaaw ñëw conseil la nga def li la wax nga daan bébé jën boobaa nag bu la neexee waxal. Mm. problème caaro yi lan la ndax gis nañ ni caaro yi bu subaa bu rëg rëg di préparer combat détail am bàyyi ma ñoom détail am dem nañu benn instant keneen sax buy préparer combat lan mooy problème mu Thiaroye ak instant bi yéen fi ngeen toll ñu gis ni ñiy ñiy détail yëpp Ousmane Diop bàyyi na làmb mi gunge xale yi Khadim Ndiaye di ko nuyu au passage bàyyi na làmb mi ngi gunge xale yi bàyyi ma njoon di ko dese bareetu ñu gis yéen ñi war a ànd à chaque fois yéen surtout yéen acteur principal yi chaque jour da ngeen dispersé wu lan moo xew lan la kenn ku nekk dafa am lu jàppal morom lan la lu xew. Thiaroye amul problème de mbëri xeexuñu te duñu bëri seen biir ñu ngi gisee ñu ngi kaf ñu ngi nuyonte mais nit ñi ñoo leen bàyyiwul te amuñu président écurie normal président bi war a yor écurie Thiaroye mu normal amuñu ko ndax ki fi nekk Baye Mandiaye maa ngi koy nuyu bu baax dafa doxul ci làmb dara dafa jéemul a xool écurie caaro yi ndax tey jii xale yi ñi fi am combat bari na. Ahmed Deme am na ko combat. njoon am na combat rëg rek am na combat ak yeneen i combat tey war na cee mën a taxaw mais mbëri lan bàyyiwul ak seen sago ñu dar mbëri ñoo sonalaate dañuy ñëw ci Ousmane Diop ñu ne yaa man njoon doo moromam kër waroo leen ànd ñu dem ci njoon wax ko loolu bu ko defee ñu fëggu nag gis seen bopp. kon xale yi ñoo ànd ñoo àndul war a ànd àndul. mais xale yi c'est que xale yi oh, mais looloo fi am. loolu fi am te xale yi fi mu toll nii ñun yàlla def na bàyyi nan xale yi lan am nanu mobiliser xale yi ñu nekk benn ñu jàppale leen mm-hmm. parce que benn écrit yi mënul écrit caaro yi mais ñàkk ànd mooy moom mooy seen faute tey jii bu fekkee njoon dafa am komba tey jii boo yëpp xataraayu caaro yu géej ñiy bëreeg ñi bëriwul ak ñëpp xataraayu nekk ci ginnaawam yàlla bu ko dimbalee ndam lay am mu rëg-rëg noonu am na dem noonu keneen ak keneen noonu. mais kalan yi kalan yi moo yàq lépp kalan moo baaxul ci dara man bëreetuma kon lan moo ma war man. accompagner xale accompagner xale yi. man boo ma yëgee toppatoo ma rek ma accompagner la man jikko jooju laa yor. njoon boo gisee may may wax ci moom. damay gisanteeg moom. damay téléphonteeg moom. damay jóge fi dem ba këram toog fa naan ataaya reer ba pare ñibbi mu dina xaalisam jox ma ma dem sama yoon. xam la baax te amul kenn ku mu dul defal. te mu ah, xol bu rafet la yor am na combat nan ko jàppale bu yàlla mayee dam ñu jàppale rëg-rëg am Ahmed dem day bëri mooy njëkk a bëri yàlla na ko sunu borom may ndam ci kàttanu borom moom tamit xale bu yaru la bu baax la wax moom tamit damay déggante téléphone di waxanteeg moom guddi ak bëccëg. moom jabaram sama xarit. waaw man Ahmed fu ma ko romba si oto man maay taxaw. ndax cër bu ma jox la ñoom moo tax ma am yaqin ci ñoom. man ku ma jox ci rek ma am yaqin ci yow ku ma joxul ci moom lijjantiwuma la. lan nga euh, am problème bari tamit ci combat yow lan moo la ci gën a métti ci détails yi. non ma ci a man wax naa li ma wax wax moom ci téléphone wax naa ko li ma bëgg wax naa ko li ma bañ nee naa ko détail moom teg ko ci suuf lii détail bi mooy rayal sa bopp ñu góor góorgóorlu dem ñaan yàlla mu may ñu ndam boo amee ndam mooy tontu li. kon moom victoire mooy tontu. man moom laa bëgg ci moom te incha allah rabbi am naa ci yaakaar nag bu baax a baax ci kàttan suñu borom bi waaw. Uh-huh. Uh, beneen bi tamit uh, bu ñu jógee foofu noonu Reug Reug mi ngi waaj ko mbaam ak Bombardier Ousmane Diop pare na pour accompagner ko. yàgg naa ko wax ndax ma Reug gisante na. te wax fa dëgg yàlla bi ñu gisee waxtaanal man ak moom bu bu baax cheikh mi ko yor tamit waxtaanal bu baax ba semaine bi passé rek cheikh maa ko au téléphone yi waxtaan man ak moom kon yàlla def na xëy na ñu ngi gisante ñu ngi waxtaan mais ci kàttanu sunu borom bi euh, lu ma man sama doole sama xam-xam ak fu may ñaanloo dinaa def tout ba ñoom ñëpp ku ci bëri am ndam. kon Ousmane Diop pare loolu rek laa bëgg. wallaahi ndax aw ma loolu caare coow li mën naa bari trop mën na maa dem fu neex ndax gis nga coow yi fi jot a jaar yëpp man ku nekk xam ne damay ànd ak Balla Gaye guddi ak bëccëg mooy sama xarit mooy sama dem daw ma seeti beneen mbër bu teyee ma seeti kii bu subaa ma seeti kii wala man benn mbër laay seet ñu ngi toog di waxtaan te ci làmb la ñuy waxtaan ndax fekk nga ñoo fa fekk nga maag moom may ludo te ci làmb la ñuy waxtaan moom laa am ci xarit te caari gi gi laa am su ma sañoon mbëru caare ku ñuy bëril yow la yàlla def ngay daan barki Cheikh Seydi Hadji Malick gëwuma kenn ku dul Alaaji Malick mais nag nanu bàyyi diggante boo xam ne tey ji dafa am ñu bëgg kaa ñagasal wala ñu yàq ko mante ne mais man caare laa am tey ji rëg-rëg doom la ci man rakk la ci man am na dem noonu bàyyi ma njoon noonu xaadim de noonu xam nga mais buñ dugal ci euh, seen i nopp esprit yoo xam ni baaxul man fi laa daan jóge ngembu fi dem défendre couleuru caaro yi dem bëri ji ñëwaat fii su ma dee daan fii laa jëm si su ma dee daanu fii laa jëm si. kon nan ma bàyyi xale yi rek. Thiaroye ñaata écurie fa am. Oh, benn écurie Thiaroye daal laa fi xam li ci des yëpp ay école li la waaw. kon Thiaroye ma yaakaar da ngeen amoon association boo xam te ni léegi dem nañ ba xale yëpp bokk benn écurie wala benn écurie boobu mujjul antu. xale yëpp ñoo bokk benn écurie ndax fi mu toll nii Ahmed dem tey jii moom am combat écurie Thiaroye boo yëpp dem nañ ko ñu Ahmed dem moom la ñuy jàppale foofu ci contact yi xam na bu keneen amee combat ñu ñëw fii rëg-rëg bi mu amee ko combat boo yëpp dañ koo fekk fële euh, seen seen koñ muy contact waa écriture daal benn la benn la mais nan nan may bat maa xale yi bàyyi leen ak seen sago ñu ànda nekk benn kenn bañu dox seen diggante ñu soppantey xalaat ndax ñoo xam ne doo leen bëri xeex doo leen def dara mais da nga leen di bàyyi ñu ànd kan mooy nangu waa caare waa caare di bëri caare lamsaar kese duñ bëri asuma caare suñ biir kon da leen bàyyi ñu bëre waaw. am na solo ah. aman mbégte contentement pour yéen doon suivre sur Kewel Info ñu daaloon kenn xam mooy Ousmane Diop tey nag dafa am benn message rek bu mu doon lancé ndax nee naa leen jàmm lu dul jàmm jàmm moo ko gën ndax lii mooy woon ni carrément nitu jàmm la ndax tey ki ne la dama bëgg a wax waxtaan ak nit ñi bàyyi sama rakk la ñeneen ñi fi nekk tamit sumay xarit lañ samay mag lañ dama bëgg jàmm am kon li may wax rek fii ñu ñëpp ñoo far kenn ku nekk na topp ki nga war a topp rek mu jeex Baye Mandione am combat combat bu am importance ci carrière am combat bu bari coow nag combat mais euh, <laughs> combat bu bari coow dinañ si ñëw njoor sama xarit bi di ko nuyuwaat au passage bébé Diène dafa demoon uti doole ñëwaat de bébé Diène. waaw mais bébé Diène am na droit dem uti doole ñëwaat. Ah. mais tamit nit yàgg naa dem Europe uti doole. Hmm. ki toog Sénégal am kattan goo xam ne moom bu ñëwee ko am mu daan ko. ñun loolu la ñaan yàlla. njoon ne xale bu tudd njoon daa juddu xam nga teel a bëre mooy yàq loolu xam nga man mi ngi toll mi ngi mel ni bi may soog a soog a bëre ñoo Ousmane mag la fekk teel a bëre gi la njoon xale bu tuuti daa teel a bëre njoon tollagul fu mu xaaja xaajabaay làmb fu dëgg yàlla wallaahi alazim du caaxaan xam nga mais comme bébé jën dem na uti doole ñëw ah. bu ñëwee yàlla na yàlla def njoon ëpp ko doole non lu wow koŋ la fi fekk ak ñoo xam ne tim to ni njoon boroomi xam-xam ñoo koy daal te bu ñëwee ci làmb ji xam ne boroomi xam-xam ñoo ko daal li may tàggatoo di nuyuwaat Sénégal gépp ak mondo an ci làmb yëpp di nuyuwaat caare di leen wax ni seeni doom a ngi noonu di bëri Ahmed Dem Reug Reug Baye ma njoon mm. ñaana leen pour ñu am ndam di ci profité di jaale waale Max Mbargane mi yaayam génn àddina mm. yàlla suuf sedd sa kawam di profité tamit di jaale waale Boury ak Balla Gaye ak ñi xam ne tamit Soumboulou Ablaye Diop xaas xam ni seen góor moo gën àddina ñoom tamit yàlla suuf sedd si xolam daal si kawam daal jërë ngeen suuf si. xool ma la ci lenn bëri laa la wax. man foo jaar nga tax suuf si yow foo jaar nga tax suuf si. da nga koy sotteeku ba ñëwaat mu lay neex mu lay naqari. fooy bañ a jaar fu ne ah, la fa jaarale. la fa nga doole sa xale yi. waaw jeex da ngay daanu maay puus maay daan. yaay mu la jàpp dinaa la fa jaarale la jeex munoo bëre amoo doole. jëlal lépp mun maa bëre aw ma doole mais man damaa daan. daan